mane mane sa ay saar ay saar ay saar ay saar yi amadu sulo yore ma wax jooje yëpp naan ma jooje amul tonton El Hadj loolu yëpp fen la dara amu ci ndeg la yow kon jooje eh, na ay jitima desi bett nga ma parce que je te croyais que ni nit nga koo xamante ni ku dal nga nit nga koo xam ni Et, euh, mais, vraiment, vraiment, tu m'as déçu. Vraiment, euh, tu m'as déçu. maman. Wow. tonton et tonton man l'homme non eh, xam nga man enregistré je pensais que une eh, belle enregistré wu moo taxoon ma wax la ne lu du ojee mais man bi may wax loolu tonton El Hadj man li ma doon wax noonu yépp xam nga rek dama jaxasoo woon loolu moo tax dama jaxasoo woon mais baal ma dégg nga on va aller au procès on va aller au procès et on va gagner le procès ça je le garantis. aji ban procès ay san xanaa da ngaa doof xanaa déggoo li nga wax nan lañ mën a demee procès quel procès yow mi taxaw wax sëñ Mbaye di insister di la wax ne la yow fi ay fen yi neen la tu as confirmé quel procès ah ban procès moo am et puis dégg nga wax ne eh, man maa ngi lekk yow man la man dama xam ne affaire yi fen la yow dama mos a wax ne ma danga fen la ah dama mos a wax. non non non non tonton El Hadj man musuma wax loolu mais euh, euh, mais, mais, mais, mais on va aller au procès et puis on va gagner ce procès on demande procès public tonton El Hadj procès public waaw parce que euh, procès public euh, dina mën a wax wax yoo xamante ni bi Sénégalais yëpp seen yaram dina daw bu ko defee ñu xam ne xale bu jigéen bi euh, dañu ko tëddee waaw parce que te bi am na lu ko naqari waaw on man man man sax dama sentir ni dama commencé ñàkk fayda waaw parce que euh, topp xale bu ndaw jàng sama carrière avocat nekk avocat euh, pendant des années et des années Eh, ñëpp gis ni man mii eh, avocat la tout le monde m'appelle avocat du peuple may défendre ay chef d'état di défendre ñoo xamante ni bi ñu tekk daal lañ ceek bi xëy dal ci yow nga nga téema di ma ñàkkal fayda nii Eh, xale boo xam ne lu mu wax ak yow bu génnee audio wala mu sinap wala mu def dara loo xamante ni eh, après day gën a ridiculiser parce que yow man <laughs> su ma la toppee aji boo defu ndànk man sama carrière <laughs> fi lay jaaree arrêté <laughs> bu bu ma la toppee boo defu ndànk sama carrière fi lay jaaree arrêté ah non non tonton El sa carrière nu muy arrêté yow procès bu mel nii musul am procès public ñu def ko en direct RTS et puis yeneen télé yëpp jël signal ko defee man ma jàkkaarloog Ousmane Sonko parce que nag tonton El man maa mën a tax pour Ousmane Sonko du mën a nekk candidat 2024 parce que sinon day jël nguur gi dégg nga kon man rek man maay seen dernier sens tonton El te et puis xam nga bu ko defee nga mën a comme lu nga doon wax sol sa robe avocat jaagar jaagar yi jaar gauche jaar droite biiju daal di wane bu ko defee mante tamit ma sol robe bu rouge daal di monter hanche daal di ñëw jaagara jaagare daal di biiju loolu aussi tamit mën parce que yow ñàkkal fayda bi mi ngi démarré ci keroog procès bi yaa ngi nii di wax monter hanche yow léegi boo monter hanche ñëpp dañuy xam ne da nga monter hanche parce que dañuy xam ne diggante bi wànq xaju fi parce que li nga def mooy wane loolu parce que yow yaa ngi monté ans bërki parce que boo nekkee ci scénario da ngay xam ne ci scénario nga nekk bi nga monté wang macha allah ñëpp daan ne ak jekk na xool leen ko ni mu wangee ah loolu yëpp nga defoon ko ci kii kii bi eh, robe bi ah ñëpp xool la gis ni nga jekkee mais eh, sa vidéo yi ngay mujjee def <laughs> ana yi yéen yéen vidéo tonton El Hadj man ban vidéo laa def man respecté naa ko parce que man ko bi ma doxee kii boobu nag ni euh, kii wu ma moom dama monté monté ange kenn xamul ni ki ñëpp ñu ngi koy wax neen aji dafa jekk dafa wang dafa def nii dafa def naa tonton El Hadj loolu moom juu moom juumaguma fi tonton El man man tonton El Hadj comprendre xale laa mais xam nga mais juumaguma loolu ku la wax loolu day wax lu ko neex enregistrement boobu kenn am ko man boobu ba gani ni génnu ma waaw loolu moom ku wax moom tey xanaa gisoo lii xanaa gisoo lii ana ana ana ana ansi ah, yaa ngi nii sa xott yaa ngi nii sa wuruj ah gisoo ko xanaa bi ngay def vidéo bi foofu da nga fàtte ni barki dem boo njaay nga dem procé ñu solal la nga nga wang wang gi daf fee mën a reesee nii yaa ngi nii ana ana lool dox di fecc ah, xam nga ñu xam ba def lii li waroo ko def Ah, d'accord d'accord tonton El Hadj maa ngi jégalu de man vidéo bi man ak sama benn xarit ñoo ko doon def bi muy ñëw sax dama ko coupé noonu wax nga dëgg wax nga dëgg waaw fii waaw fi waaw waaw waaw li erreur bi tonton El Hadj ñu bari man dañ baña bañ a seetlu te yow avocat dëgg nga lii da koy layal après nga layal ko ne aji wa aji wax na aji day jaay fonde aji ki xam nga yow am na noo xam ne boo ko defaree rek après ma partagé la photo bi ma solee lu rose li li ma doon doxee nga ne xool leen ko ajee ngi nii ni mu waŋee ajee ngi nii jekk de nga ci gàlle benn bin bin day gën a day gën a foofa toj loolu nga wax da nga naan foofa toj barkira sol la aji saar su ma la toppee dinaa fayda yow man maay taxaw naan aji di di plaider ci sa wang sa wang man luy sama yoon ci nga wang ak nga bañ a wang man maa ci ciy plaider aji saar barke rasool laay seet naa seet nag mais man bàyyi naa bàyyi naa parce que yëpp caaxaan yi bu ma ko toppee eh, naa ba kenn dootuma benn crédibilité naan aji saar dafa wang xool leen ko ni mu def nii ni mu def loolu loolu man loolu dafa nga ne ñeme naa ko wax loolu xalaat naa ko wax yaa loolu maître yow loolu motax ñun ñu ñu boole la ci ki bi ci pool d'avocat bi parce que yow ya wa a yor bataille ruube bi ruube bi yow ya war a parce que loolu war nga ko mëna def parce que photo yu aussi tamit bu fekkente ni boy Sonko yi jël nañ ko partager ko dal di wane ni aji e, wangul bu boba yow ya mëna plaider loolu wane ni aji wang na boko waxé après du am ben problème yow il faut le faire maître et l'âge. yow tonton loolu mën nga ko kii bu ko defee nga wax man dinaa la partager photo yu wan yu ma yor ay saar gis nga bul ma fontoo teel say photo yu wan boo yoree photo yu wan nga xool keneen koo ko partager yaa ngi dégg man bul ma ko partager maa ngi ne ànd ak yow barki eh, nga jekk-jekk ñu ñu nga ma ci liste bi wax lii ak wax laa wala ma di ko encore une fois naan maay eh, photo yu wax nga ñu def ni gis nga que ça la wang de kii wang de kaa ou des rondeurs de kii et rondeurs de kaa loolu du sama liggéey tey du sama liggéey ëllëg caaw bàyyi naa tonton El Hadj mënuloo bàyyi mënuloo bàyyi lii ñun ñoo ko dañ ciy dem ba jeex waaw ñoo ko sump dañ ciy dem ba jeex su fekkente ni da nga taxaw di wax ni bàyyi nga kon ma sosal la booy boo nga xam ne dinaa la sosal parce que am naa say enregistrement waaw man boo ma boo bàyyi ma lay sosal bu yeboo mu leer la il faut que nga continuer parce que affaire bi yaa ci dugg te bi nga ciy dugg leer na la ni caaxaan la mais yaa si ñëw nooru ci waaw tonton élage booy boo xam ne booy bàyyi ma lay ma ne sosal ma sosal ma lamin du lekk morom it ñorul sosal ma man sa uju bi garde naa ko sosal ma yaar ma koy bàyyi ma lay sosal garde naa uju bi lek may bay mbay numéro 2 bay mbay si MC numéro 2 booy bo mo wóor la ni en israël la yow it man may bay mbay MC numéro 2 boo ma sosalee ma yóbbu lii bureau procureur yoole la wane ne yow xale nga bo xamanteni bi lepp loy def du deug waaw man mom sama carrière duma ko jël diko ko tayle ci lu ñak fay la dem ñaan maître maître Diouf mom lay laaj en tant que avocat aji daa wangoon wala wangul loolu dinaa ko plaider yow danga may fontoor parce que sol laay danga ma